ñi nga xam ne ñooy xeex ak ñun war nañu mën a xeex ak ñun à visage découvert ñaar rek moo am am na taalibe bi nga xam ni xamul lu lu lu xew seetaanul vidéo dañu ñëw daggal ko benn pàcc euh, daal di koy euh, euh, xaptal wax ko ay wax xolam futtu mu mer kooku mënuñu ko tontu wa ilaa dañu koy ñaan rek mu dem déglu wax bi début ba fin mu door a xam lan moo nekk soloy wax bi ñeneen ñi mooy ñi nga xam ni dañuy mbubboo tarixa yi comme ni ma leen wax pour di ñu diaboliser ak di bëgg a yëkkati ay kàddu di ko jëm jëmale ci sunu ay jëmm ak sunu diggante ak sunu waajur yu tedd yooyu may wax ñooñu nañu dem ñu noppalu ji ku am sa combat boo bëgg combattre euh, contre euh, euh, a busoo le contre le PASTEF le contre les patriotes le contre ou le contre l'opposition amal fitou, assumer ce combat à visage découvert bu làqatu ci ay pas-pasu jàmbur pour di tout mal ñi lu amul ndax man Cheikh Mahamadul Muntaha euh, sunu guide sunu sunu waajur bu tedd boobu bobo. Bàlla yal na fi man bu soo ma yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko jëmale ci moom àdduna du tank, ba man bu soo def ndax Cheikh Ahmadul Muntaxa man dama bokk ak moom ci wàllu wépp bu yàlla di def ci àdduna bokk ak moom ci soxna jaara soxna jaara moom ma bokkaat ak moom ñaari yoon bokk ak ci Mamor Anta Sali bokk moom ci El Hadj Omar gis nga as euh, askanum bu soobee euh, yaatuwul ñeenti pàcc képp la ci gollere gee ñu sosoo te ñeenti pàcc yooyu ñeenti doom yu góor la ñaari doom yu góor yi kenn ki di Wahab Ali kenn ki di sire Ali ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Wahab Ali mooy maam ci soxna Jaara Buso Siré Ali mooy maam ci man diggante bi sorewul ndax gis nga Wahab Ali moom moo jur Mouhamadou Wahab Mouhamadou Wahab wëlbatiku jur jur Amadou Wahab Amadou Wahab wëlbatiku jur Mouhamadou Buso Mouhamadou Buso moom moo jur soxna Jaara soxna Jaara Tullaay borom poroxaan su su tedd soosu nga xamante ne yàlla dafa def lépp lu ñuy bay fii ci ci ci dugub foofu la gën a barkeelee man kooku laa bokkal deret kon man kàddu bu ñaaw mënut a jóge ci man di dem ci xalif général des Mourides gis nga bokk ma bokkal El Hadj Omar Foutiyou Tall kàddu gu ñaaw mënut a jóge ci man di dem ci ci ci ci ci sëñ Baye Sy Mansour wala ci benn kilifa diine bu bokk ci tarixa tijaaniya dem leen ngeen xooli combat dem leen ngeen xeex ak ñun ci ay argument indil leen ñu ay argument ci li ñu leen di wax li ñu leen di wax mooy développement suñu réew li ñu leen di wax mooy corruption li ñu leen di wax mooy injustice li ñu leen di wax mooy instrumentalisation de la justice li ñu leen di wax mooy euh, jël alalu askan wi di féetewoo ko seen bopp di ci dund di ci gundaandaat askan wi di xiif ak di dee ak di mar man musumaa jënd xeexu waa Pastef musumaa jënd xeexu système ak anti système waaye nag dem ngeen ba mbëkk ma ci xeex bi parce que jamono yi maa ngi dégg ay menaces ay nit ñu may menacé yéen ñi may menacé xanaa xamu leen ma yéen xamu leen ni man ñaari boori maam yi ma am yëpp kenn ki di Cheikh Omar Foutiyou Tall macha allah dafa jihaat ba génn réewam. ki ci des di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul dam ko exilé ndax bañam ak résistance sama deret deretu go deretu du deretu koo xamante ne day daw man deretu gor laa yor man deretu góor laa sama dereta ma tooñ sama deret moom moo ma tooñ def ci kaw suuf mënta fexe ba man su ma jaaxlee samay rangoon su xiinee duma tudd sa Mouhamadou Mountakha su ma amee lu ma metti duma woo sa Mouhamadou Mountakha samay mbokk suma papa duma tomp di wax sama bopp mais léeg-léeg il faut nit ñi di wax man ki ma jur moom mooy troisième élimaanu alim almaami élimaanu kulli bu soobe ca golleere ñu toog man sumay ndey su may fàllu baay ndey ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy képp kuy liido fële ca golleere ñi tant li ñi tant buso nga xamante ne arxuraan ak njàng moom lañu xëccoo ba jamono ji may wax ak yow ku santul li doo jiite jumaa jooju ci golleere man foofu laa sosoo man fa soxow ma fu ma nit di menacé ci li ma gëm waaye man mënoon na maa toog sama mbokk Haalpulaar yi dama fay am wàll ndaxte sama mbokk mbàkke mbàkke yi di samay sang nga xam ne fu ma leen gisee bëgg ceeb laa leen di woowee ñooñu bu ma toogoon golle rek sax ñu jox ma sama wàll waaye man maa bëgg Cheikhul Khadim man maa bëgg seen tubaa man maa wóolu Cheikhul Khadim wóolu seen tubaa def ko fierté mbindeef ci àdduna munta tax duma tudd sëñ Touba duma ma tudd sëñ Mountakha Bachir dem leen ngeen wuti beneen combat bàyyi leen seen combat yi ngeen di combattre lii combat de lâche la ñu bare ci yéen bokk ndax ñu bare ñu ngay gis boo leen gisee dañuy dem làqatu ci ay profil ay homme politique ñoo ne ci seen ginnaaw ngeen di ñëw bëgg a jaxase nit ñi bëgg a nit ñi fexe ngeen ba Sénégal bëgg nekk ñaari Sénégal ngeen bëgg a gëmloo nit ñi nit ñi bëgg Sénégal ëllëg duñu ay nitu euh, diine duñu nit ñu nga xam ni dañu fonk euh, kilifa yi bàyyi leen wax bu ñaaw ñun mënuñoo ñàkk fonk kilifa yi parce que ñun ci kilifa yi lañu bokk ñoom lañuy ñuy ndamoo ñun ñoom lañuy tiitaroo ñoom képp lañu am bu ñu bëggee sant leen bu ñu jaaxlee woo leen munu leen ñu diaboliser diaboliser ngeen Ousmane Sonko ba kilifa diine gisal seen bopp ni li ngeen di wax du dëgg ngeen diaboliser ay nitam am na si ñoo xam ne sa yéen a nekk ci seen ginnaaw yéen a nekk ci seen ginnaaw nit da am fit nit da am fit combat politique dafa war a des ci arène politique boo bëggee combattre nit politiquement da koy combattre politiquement avec des armes mu la indilee argument nga indi ko argument mi wër di ko sosal wër di ko diaboliser wër di ko waxal lu amul di tàqale sénégalais yi tàqale tarixa yi tàqale xeet yi tàqale waasoo yi lépp ndax lan lépp ndax lan ñii ñoo ne ci yoon bi ñii ñoo nekkul ci yoon bi bëgg indi nit ay xiiroo loolu mënu fee am loolu mënu fee am ndax ñun yàlla moo def ñu doon benn say yàlla moo def ñu doon benn say Cheikh Omar ma nga tase ak Mamor Anta Sali boobu Cheikhul Khadim sunu yaakaar wi tey sax juddoogul mu xamal ko li mu war a ñëw ci deret boobu la ñu bokkee ci deret boobu la ñu bokkee leen gis ci ñun kaddu yu tegginuwul foo gis nag di nga gis ay xol yu fut mais li ci gën a bëri ay nit ñooy instrumentaliser ay nit di diaboliser nit ñi mënu leen diaboliser nit ñi yéen minorité ngeen minorité bu tuuti bu bëgg hypothéquer avenir u majorité loolu kenn du ko nangu kenn du ko nangu minorité bu ndaw bëgg hypothéquer avenir u majorité ñun ñëpp ay jullit lañ gëm yàlla gëm yenent bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom wékku ci sunu ay waajuur ñenn ñi nga xam ne dañuy mbubboo yenn yi dama bëgg ngeen xam ni balaa ñii di doon suñu ay kilifa diine dañoo nekk suñuy waajur jur ñu juru deret kon diggante yooyu xeju leen ci maamu Ousmane Sonko ku ko génnoon teg ko ñu won la jàng jàngkatu arxuraan bi mu doon ak liggéey bi mu liggéeyal suñu boroom ci yoonam fii ko fi teg maamam mu génne na lamu mu bokk

samay kàddu nak damay ñaan patriote yi xamna naa bi ngeen am ci man wax ngeen manifester ngeen sen soutien mais bu leen nangou ku leen divertir le combat du Fofu, la résistance ce n'est pas défendre maimouna contre ñenn ñi nga xamni dañuy laqatu ci ay tarixa du fofu revenons à nos moutons revenons à notre combat notre combat c'est nos détenus politiques ñi nga xam ne jamono ji lekkuñu naanuñu lekkuñu naanuñu gis nga fi may wax ak yow nii loolu daf leen déranger parce que adoune bi mu ngi leen di xool ils sont mal à l'aise ils sont mal à l'aise bugguñu wax ci loolu moo tax ñuy changer débat bi moo tax ñuy changer débat bi moo tax ñu bëgg a teg fii ay yeneen débat yoo xam ne ci loolu la ñuy wax xam ngeen suñu demee ba soxna yi Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu wax lu ñu dund ci seen biir ngeen xam ni mbir mi metti na te sore na parce que ku leen xam-xam ni du ñuy actrice politique ma leen di jaajëfal au passage di leen wax ne leen sagal nañu seen seen borom kër waaye sagal nañ ñu itam ñun jigéen ñii di xeex ci seen wetu boroom kër ndax wane nañu dignité mais elles sont pas politiques ñoom dañuy wax en tant que ay yaay en tant que ay épouse mais nañu dellu siwaat ci cri de cœur boobu nañu dellu siwaat ci cri de cœur boobu cri de cœur bi xam ngeen mooy lan mooy tey jii Bissou, dimanche 20 août plus de 10 personnes Nous, naanuñu ñu ngi ci loxo ay docteur ndax grève de la faim pour résister contre injustice Nous nous leen état de santé précaire te war leen libérer ñu dellu seeni kër war évacuer les ñu dem faju ji ñu tëj leen ci ay Sénégal dafa am ay kasso yi hôpital yematuñu tëj kaso mais maintenant même boo feebaree ba dem hôpital dañuy continuer di tëj kasso ba biir hôpital fi may wax ak yow ni dafa am ay checkpoint soxna yi tedd yoy ñooñu ko wax am ay scanner pour di fouiller ay nit ñuy dem di séti ay malade soxna yu tedd yoy ñooñu ko wax c'est de ça qu'il s'agit

comme si ñun jaay ñu woon suñuy Il y a des vérités qui font mal buñ ko bañee dégg nag dañuy créer ay contre-feu déplacer le débat le débat ce n'est pas moi bu leen sonal seen bopp ci côté boobu continuer leen fi ngeen nekkoon ci combat bi dañu dellu foofu Sénégal le pays bi ñuy woowe Sénégal dëkk ñu tedd ñi dëkk nit ñu baax ñi deuk Sénégal bobu may wax ak qu'il ni ay jamono amna ñu ne ci diggante dundu ak dee ndaxte injustice bu leen teg ndax gouvernement bu bëgg rester au pouvoir mu jaral ko lepp lolu muy dëkk le monde ñu ñuy waxtaanee au Sénégal l'opposant le chef de l'opposition enfermé en prison il est en grève de la faim il est en réanimation avocat yi bind nañu gis ngeen dem nañu Genève déposé ko adduna bi yépp mu ngi retenir son souffle que entre-temps pour créer un contre-feu am ñu yëkkati ay kàddu ne dañuy menacer Maïmouna Bousso de mort jot naa ko mais rassurez-vous fii ñaari kese ñoo fi nekk responsable de lu ma mënti daal ñaar Antoine Félix Diome ak Macky Sall ndax ñoom lu tax responsable ñoom ñoo yor kaaraange ñoo yor sécurité

Mais ne vous inquiétez même pas. ne vous inquiétez même pas ndax ñi ma leen wax léegi ñuy samay maam ay ñay lañu duñu jur mbote te dëkk bi dañ fay def lu war a tax ñuy làqatu wala di dugg ci ay paxu kaña juddoowuñu ko màggewuñu ko nàmpuñu ko du ci sunu deret nit boo amee fit di wax ak moom danga koy wax ak moom mais doo ko yónni ay ojo di ko mën a de mort may wax nag ñu am yabeet gu toll ni di utiliser ay nit ñu am seen tarixa ba ci tudd ay Baay Faal Baay Faal yi nga xamante ne lu dul diggal ndigal ñu ko jëfee lu dul ndigal duñu ko jëfee am na ku ne fay naa sax ay Baay Faal ay millions pour ñu dal ci sa kaw loolu ñàkk respecté Baay Faal yi la parce que Baay Faal xam nga ni kenn mënu koo fay ndigal képp lay defee te Baye Fall bi xam na kan mooy mbubboo tarixa bi pour ut ci lu mu am ak kan moo gëm saxal mu taxa ba bo dënnam tàngee mu woo ko làmmiñ du lekk moroomu làmmiñam te ñu leen ñu xatal ci dëkk bi bu leen sonal seen bopp bu leen sonal seen bopp El Hadj Lamine Gnigue tiituma ragaluma je suis rassurée j'ai même le cœur rempli de d'affection ci taxawaay bi ma gis sénégalais taxaw ma mais dama ni génn leen ci débat bobu, ñu l'en bëgg a du combat bi le combat ce sont les grévistes de la faim yi que diggante dundu ak dee man nag ñi may saaga di ma menacer seen ay numéro mu ngi ci téléphone bi. ma enregistré jox ko huissier dina ko jox yoon mu def liggéeyam waaye pour ay nit ñu perte ñu amul jot ñu nga xam ni man awma seen jot ñuy taxaw di tuddante ak man nit dangay tontu sa nawle man duma taxaw di tontu ñu dul sama nawle wallaay lazim rus naa leen ci yéen sax yeen ay xale yéen ay mag yéen ñi ma bokkalul dara ngeen di leen tontu man bu ma leen jéggee yéen di leen tontu kon man xanaa dama leen a xeeb te leen dalal leen seen xel dalal leen seen xel benn combat kepp la am la libération de ces détenus politiques là la restauration de ce pays là amuñu beneen combat ku jàpp ni boo xëyee suba wax ba géex day tax may mun a bu so la li ngay wax kay bu amee bu ko wax wone ko <laughs> li ngay wax bu amee wax dafa metti danga koy teg ay preuve wala nga duut ci baaraam mais toog rek di sos ku sos yaag sa bàmmeel ku sos man nangu naa ku ma xas nangu naa ku ma sax saaga comme ça au passage nangu naa ku ma fanal duma ci wax dara ni xam nga lan laa dul nangu ku ma menacé ku jël téléphone am menacé ma loolu duma ko nangu parce que ku ma menacé mooy danga ma bëgg a wax ne yaa ma ëppale ci réew mi te man réew mi kenn ëppalewu ma fi <laughs> man réew mi kenn ëppalewu ma fi yéen réew mi bu leen nangu ku leen fi ëppale Vous n'avez pas ku leen ëppale ci réew mi bu leen nangu ku leen attention dawal bu leen nangu revenons sur le focus à la Sanba. la libération de Ousmane Sonko la libération des détenus politiques les anonymes les anonymes il y a des centaines d'anonymes dans les prisons du Sénégal Il nga xam ni opinion politique moom moo amna na ñoo ay post Facebook mo len pourtant chaque jour ay nit def ay post Facebook di menacer de mort des gens de l'opposition te kenn du y japp ana cybercriminalité ana Félix Antoine Diom? ana sa justice ana la république ana l'état de droit ñun dal ay nit sañ nañu ñoom tal sen ay caméra di ñu menacer ouvertement te du ngeen len wo

vocalu menace, ak vocalu saaga ndey yi ne sax jomb nako diko def ci sama journal parce que amna ño xamni xam ne may importance mais c'est juste pour wane deux poids deux mesures bi xex c'est juste pour la persécution bi subir ñun persécution bi subir ñun en tant que des opposants te ku nek opposé wu nga fi dalu la Cheikh Omar Diagne borom xam-xam bu mag boobu Abdou Karim xurum xaax nga xam ni pas-pas dong la xeexee ki nekk Touba nga xam ne da doon filmer képp doon def live yi xale boobu lamin kenn mënul lim détenu détenu yëpp ñu ne nag dëkk bi sunu maam yi moom ñu bokk ci ñoom mun nañ ñu ci seppi day fekk mu neex ñu day fekk mu neex ñu dalal leen seen xel gis nga ñii di xataraayu minorité lañu dañoo am ay intérêt nag yi ñu war a préserver moo tax mu jaral leen xeex bi xeex bi jaral na leen sosal nit ñi xeex bi naral na leen jël seen xaalis ne dañuy song nit ñi buñ ko réussiree autorités yi ñoo ko seetaan buñ ko réussiree autorité yi ñoo ko seetaan waaye lenn de mun naa ko xam gis nga li ne fii ak nek ko fii mënuñu fexe ba génné ko mënuñu fexe ba génné ko dalal leen seen xel mais revenons au combat Diop Taïf merci Bassirou Diakhaté Diop Taïf euh dama bëri ay appel ñu may wo nan ma lan la lan la mais man très bien ça va très bien maa ci jam ak salam parce que nena la ñooñu

diko tek ci benn kilifa diine waaye ñooñu des fois dañuy xër ba neex na ñoo manipuler waaye ñooñu barewuñu ñooñu barewuñu ñi gën a bare mooy ñi nga xam ni en fait dañu nekk ay ragal dañuy bëgg xeex ñemewuñu ko ouvertement parce que amuñu argument en fait depuis des années ñu ngi xeex ak ñu ci argument euh, ils ont perdu donc lenn moo leen dese mooy euh, colmater ay ay ay mbir dagg ay mbir làqatu si ginnaaw ay ay tarixa di puus nit ñi ah euh, comme si euh, ñun ñi nekk ci opposition bi dañoo buggul kilifa diine yi wala dañ leen a respecté wul moo tax loolu bu ñu nangu loolu <laughs> ndax ñun ci ñoom la ñu bokk ñun ñoo leen ëppale ci ñoom d'accord ñun ñoo leen ëppale ci moom nit doo am loo moom koo xamante ne moomut lenn ñëw di mbubboo loolu di ko rocc ci sa loxo nga di ko nangu refusons ce combat parce que ce n'est pas le combat parce que nous, nous rek de cette diabolisation te gis nga bu nous réseau combat nit ñi réagir dañuy jël nit nous ni ñu nous ñoom nous bu ñu euh, euh, nous Nous du fi amati Nous du fi amati nous fekk na loolu yëpp du amul du dëgg du dëgg ni ma leen wax ñun ay ñun ñooy la majorité ñoom ñooy la minorité restons nañu gën a jàppante nañu continuer ci yoon wi ñu nekk bu ñu nangu ku ñu ku ñu divertir nañu fokkisaat live bi gudd na mais loolu kese la pour vous rassurer je ne je ne je ne suis victime d'aucune menace qui arrive jusqu'à moi toutes les menaces sont dans ce téléphone euh, enregistré huissier et transcrire noko et ce sont des menaces que je considère même pour moi ministre de l'intérieur Antoine Diom la mon président ak ministre de la justice ak yor parce que nous koy gis ndax suñu à visage découvert nous défé ay menaces donc xana ñun nous ay sénégalais légui ñom dal bu fekkenté né opposition bi la ñu né ñoom dañuy jël force reste à la loi teg ko ci suñu kaw mais bu dee ñun ñooy subir ay insultes ay menaces dara du leen ci fekk ñu teg ko fan ñoom ñoom moom nit ñi donc dama leen di vidéo bi c'est pour rassurer leen rassurer leen ngeen dalal seen xel euh, rassurer ñi nga xam ni amoon nañ ay jiixi jaaxa euh, pour ne ndax euh, dafa am lu mu impact ci man amul bi ci des mooy bëgg naa leen torop wallaay bëgg naa leen su ma gisee seen i kër kontaan naa trop mais euh, du man maay du man cible bi jamono ji ma wax ni benn cible la ñu am muy le détenu politique en chef euh, Ousmane Sonko euh, président de PASTEF teg ci ñoom Cheikh Bara Ndiaye teg ci ñi ma fi lim ñëpp ñooy sunu ay yite képp ñooy sunu ay yitte nan dellu siwaat ci loolu dañ dellu cuwaat ci loolu parce que dafa mel sen seen yoy yooyu yoy yooyu da leen a déranger jëmm yooyu jëmm yooyu da leen déranger bu ngeen di len di tudd sax sen xol yi day metti dinañ préférer ngeen tudd ñëpp ba mu dess bu len tudd ñooñu kon bu len len bu len len bu len leen faale dellu siwaat len ci lii nañ dellu siwaat ci loolu parce que euh, quand même 21 jours de grève de la faim ça fait 3 semaines trois semaines de grève de la faim, là, c'est euh, le corps ne tient plus. D'accord Le corps ne tient plus. Parce que nit ki, euh, mën nga toog ñetti fan doo mën nga trois semaines doo lek, peut-être sax réanimation et perfusion yi monte tax Ousmane Sonko tenir ba tey mais xam ni situation de santé am dafa nekk en danger te gis nga ñom ñun ñuy wax kilifa yi di dégg mo leen déranger moo tax ñu bëgg ñu diaboliser jaxassañu ak kilifa yi. ñun nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant képp kuy kilifa diine ci réew mi ndax dégg nañu sunu ay wax dégg nañ sunu ay wax te am nañu yaakaar ne li ñuy yëg li yàqin bi ñu am ñu ñoom ñooy bokk ak ñu bëgg réew mi ñooñu sax gën a bëgg réew mi sëñ Muntaxa Al Bachir du ku ñuy xeexee du paaka du lancet moom puso la day ñaw ku bëgg a xeex wutil beneen komba wutil beneen komba sama maam la sama baay la sama kal la fi ma ko def ci sama xol ba heure bu samay rangoñ xiinee ma tudd ko mbindeef mënu koo dindi daay leen diaboliser bi d'accord bàyyi leen diaboliser bi bu leen accepter loolu ñun ñu ngi wax euh, euh, kilifa yaa ngi dégg euh, da leen a metti parce que kilifa yi li ñuy dégg neexu leen ndaxte li tax neexu leen mooy amna lu bare lo xamantene ne du ñepp ñoko xam continuer à di wax continuer à di wax continuer à di sensibiliser continuer à di sensibiliser lu ngeen meun rek def len ko maintenant tout le reste bàyyi len mu jàll ci combat bi la bok ci combat bi la bok parce que c'est ça le Sénégal de maintenant les les adversaires politiques amatuñu argument argument bu ñu am moy l'insulte moy euh, sos moy yu mel noonu waye nak sante yalla bu baax ndax fi ngeen dugg mom da a perte ndax yeen xam ngeen ñan ngeen wax murit ñu nga xam ni seen pas-pas ni mu ci ñoom noonu la dëgg ci euh, manipuler kenn manipuler kenn mënu leen a manipuler yéen ñi tuuti ñu nekk ci seen ci biir nii di jéem a xool nan geen di defe ay mbir pour di leen yëkkati non da ngeen na tuuti ci loolu da na tuuti ci loolu sama mbokk taalibe yi sama sang yi maa ngi leen di sant di leen gërëm mate ngeen li ngeen doon waaw parce que des gens disent oui ñu gëm ay fanatique lañu yéen loolu ngeen gëm respecté wu leen leen sax moo tax ngeen foog ni mun ngeen leen manipuler fu ngeen nek nag dem ngeen fa tok fa sosal nit ñi sosal opposition bi sosal Ousmane Sonko sosal nit ñi mais nag yalla yalla mo fi ne yalla rek a fi nek te nak gis nga gis nga gis nga ay wax ay katch da guddut fan ku ko wax ñaari fan ñett mu dañ deug bi ñew taxawaat ñepp xam nañu luy paham ak lu dul dëgg ñëpp xam nañu luy deug ak lu dul ngeen ci di jaxasi nit ñi tout ngeen ci loolu daal laa ne woon laa ko wax ci ay kàddu bëgg naa gisaat ñu dellu ci sunu combat bi reprenons nos soldats nos combattants Delolène, leen ci sunu ay profil Delolène au centre de nos discussions Delolène au centre de notre conversation Inshallah, inshallah, inshallah. Donc donc nañu devons ci loolu nañu delluwaat ci ci ci ci woo sunu ay kilifa waxtaan ak sunu ay kilifa nañu delluwaat ci gën a suudewu nañu delluwaat ci àndaat ñu sunu bopp joxantewaat ay loxo fexe ba nga xamante ne incha allah rabbi euh, combat yi di ñëw dañu war koo mëne pour le Sénégal